ah Assane dégguñu ko de. non mais <laughs> mais xu noo taxawal sa doomu ndey ngi nii Tafa Dabrène Tafa ngi nii l'international ak jabaram Marème mais madame da xew nag barki Seydina Mohamed yow da ñëw ci kër gi indi fi bruit bu rëy kenn attanu la barki borom Touba lii fii rek laa gis takk jabar tey si suba si mu dem Angleterre fa la defee heure ménage bi fa defee heure ménage bi mais Tafa kenn du yow mais daa brens man dama laa gisagul gisaguma la mais madame il est mignon barki Seydina Mohamed Mais madame, il est mignonne, mon ami de frère. Madame, il est mignonne. Mais tu l'en es. Mais avance,